damay jëm si sargal bi waaye dama bëgg artiste comédien yi fi nekk ñëpp ma ñaan leen deux minutes rek ngeen na ñëw tous les artistes comédiens Dambou Meles Iram Ndeye Ndiaye Papa Ndiaye affaire la ñëw leen mais public vous êtes vous êtes très vous êtes très belle waaw vous êtes sauvage naa la wax loolu parce euh, que ñoom yore public tey fii may ma deux minutes deux non bu nag gaa yi ñëw ñëwal kenn du sëriñ Akala billaahi gaa yi dikk leen gaa yi ñëw leen waaye gëy gëy waaw def am na solo lool mm-hmm. dafa am koo xam ni bàyyi loolu bàyyi loolu ma bàyyi loolu bàyyi loolu ñëw acca gisaguma meles gisaguma kombe meles ñëwal ana Kombe. ayca ngi nii ma ñuq ba daal. ana Jures. ndaanaan yaa ngi nii. waaye yëg leen ma ñuq ñëw leen. ana Kombe ana ma ñuq. El Hadji Dërëm Gadio. Eh, ma ñuq a ngi nii. ayca waxal dabal taay mi. mbooloo mi. mbooloo mi képp ku fi toog lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. ayca jamono gi nii. ñun théâtre kat yi lii la ñu soxla. ñu xew la ngeen ñëw wuy si ñu. kon bala may wax dara dama bëgg yéen ngeen tàcc seen bopp ba pare ay kilifa dañ fay nekk yéen xam ngeen ne Papa Ndiaye Ndeye jaara mi ngi jaara Fallou yéegal noonu sëñ Abdallah jaara ak Fallou voilà léegi nag gars yi soo soo gisee li tax ma woo ñii kooku la acca sama gars su ngeen gisee li tax ma woo ñii ñëpp taxaw fii ñi xewle ñoo toll noonu si ñun muy dërëm gaajo ak bàyyi ngaaye dërëm ñoo cheminendoo ensemble bàyyi ngaaye maag alsan bi mii ak gars yi dañ doon dem seen tur di leen fekk ñuy def lu neex waaye ay kilifa ñu ngi fi wax nañ leen ba pare sëñ Abdallah ah saa neex da nga xam Thiès Taksi si daam seen man day troisième xam maa ko wax sa kaw man man Baye Ndiaye bi muy wax léegi sëñ bi moo ma taal càkkal ku bëgg a tàkk fii rek nan wax Cheikh naa kontaan naa si yow si di Diouf parce que Jackson dégg naa mi ngi fii non tey tey wayaal yi ñu soxlawuñu xaalis soxlawuñu dara mais Papa nga wax ci turu artiste yëpp ñu wàcc daal di dem bàyyi gaay ñu daal di doxal jabel bala bala bàyyi ba Papa Ndiaye wax nga do ko wax nga remercier ñep ñi fi tew ñep salam salaamaaleykum merci beaucoup ding ci weet lolu parce que je pense bien que je mérite pas des applaudissements ah merci beaucoup asalaamaaleykum di len nuyu nuyuwaat bu baax baax di len tatagal di len sargal et di len jéggalu bu baax baax ci toogaay bu yàgg bi parce que toogaay bi yàgg na mais kenn ku fi nekk ku nekk dafa am lu la jaral ca toog donc kenn ku nekk ci toogaay boobu ki ko jaral mu toog yàlla bu yàlla tas yaakaaram ñu ngi leen di jaajëfal suñu public bu charmant bi nga xamante ni à chaque fois bu ñu wootee dañ leen di gis ngeen jóge ci ngeen nekk ci xew ngeen nekk dañ leen di gis parce que ñun seen anti stress waaye yéenay suñu doole di leen seen baax a baax. donc bu bi nga xamante ne mooy ñii. média bi. bi média bi ñun artiste ko du sama baat bi xëy na ci man la jóge mais suñu baat la ñun comédiens yi ñun ñëpp fu ñu mënti woot dañu leen di gis da ngeen di nekk suñu ay manifestation début ba fin da ngeen ñuy jàppale ci boor bu nekk donc dañu leen di jaajëfal ku lim doo juum waaye da nga dul matale donc jàngeen jëf presse bi yëpp ñu leen di jaajëfal mais nag. ok wax naan. li wolof di wax naan deret loos mooy mbagg borom te li je bopp di jege jege mbagg loosaraw sëñ Abdallah Diouf sëñ Medoune Sey Tawféex ak kan ak ak sëñ ak sëñ Thiané Serigne Thiané donc kenn ku ci nekk ci yéen bu ñu leen sargalee fii war nañ leen sargal bu ñu leen indee fii di leen sargal ci turu kenn ku ci nekk ci yéen ñi ñun la waroon kenn ku ci nekk.

muy Serigne Abdallah Diouf Serigne Abdallah Diouf da di koo xamante ni ndawalu guddi la ku ci mos da ngay foog yaa ci ëppale Serigne Abdallah Diouf man du ma ne kenn yàllaa ñu lay nuyu te nam ma yóbbu man mosuma taxaw ci benn seen gërëm mindaa fa ci yow la njëkkee man damaa war a toog ñu may gërëm ndax sëto Alburi laa nag te diñ kon bu ma toogee di la wax c'est parce que yaa ko def. ok merci beaucoup dañoo war a jaar ci sargal bi. aywa ok merci euh, euh, beaucoup euh, waaye bala ngeen kii Habib kan moo fay saal bi yàgg naa def loolu mais dama ni sargal bii kan moo ko moom. waa léegi damaa bëgg nga dugal ma sëñ Abdallah tuuti ngeen def seen jabar gars yi. kon jërëjëf tàccu gars yi ñu wàccu jërëjëf. ayca li ngi doog a neex. bàyyi yéen a ngi doog a laal laalaate merci beaucoup. am na solo Serigne Diané moom Serigne Babacar Sy mag rek dana man am lokku ba jàpp ko benn xar benn xar yàlla bokku joor Serigne bi naam Diané sama am Serigne naam Diané boo demee Touba moo leen kuy topp Serigne Bamba xam na kuy moom waaye nag tool yi muy bari bari am ko nu wut yëpp am waay waay jamaat dégg tur ba ku la xool xam ni góor yàlla nga ku la xool xam ni wàllu ko ku la xool xam ni ku baax nga ku la xool xam ni ki nga ku la xool xam ni sa xarit man laaj moom ku la xool ak man wut képp ak mooy waaye jamaat ci suuf ba. Serigne Mady Seye borom tawfiq ki nga xamante ni benn maa la lay dégg ci muy maa la mag Serigne Mady Seye na ngor Serigne Mady Seye na jom xam na ku